n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daal di fay def alimentation daal di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu de dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe ne yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci Touba am décor am salle VIP bu baax ñu climatise ko ba mu sedd waaw teel leen a réserver pour seeni conférence seeni réunion seeni cérémonie seeni pause café seeni ndaje lu ngeen te soxla rek équipe bu mucc ayib boo xam ni ñëpp liggéey rek la ñuy def ña nga foofu di leen xaar terrasse ba am na pâtisserie am nañu traiteur woo ñu ci 33 976 03 39 77 899 45 45 wala 76 354 44 44 wala 77 583 17 17 boutique Kër Xaar Xaadim nekk dans la ville sainte de Touba